jërëjëf di rafetlu seen teewaay fii ah pense que bu ñu jógee ci élection rafet na citoyen bu ci nekk wax li nga xam ne moom nga xalaat ci élection yi élection yi surtout liñ ci njëkk a félicité mooy dal bi mu àndal waaw dégguñu ci xiiroo dégguñu ñu ŋaayoo waaw peuple le peuple a été mature ñëw nañ dugal dugg ci école yi wala dugg ci bureau de vote yi vote ci jàmm delluwaat suñu kër élection aussi tendance bi mu am aussi neex nañu bu baax je sais que on a on on va droit à un changement parce que kenn ku ci nekk doon na gis suba ngoon di jàngat li nga xam ne doon na xew ci treizième législature bii di jàll. waaw ay scandale yoo xam ne jéggi na dayo ci député yi bu ñu demee ba di arrêté ay faux billets ñu ni député ko yor ñu arrêté waat ay ay ay ay ndax kay dugg nañ ci njuuj njaaj yoo xam ne vraiment liñ doon séntu ci ñoom gisuñu ko. moo tax on a jugé nécessaire que bale leen ñoom ñi fi nekkoon ñëpp indi fi ñeneen ñu bees ñeneen ñi ñuy séntu ci ñoom lu ëpp lu raw ñi nga xam ne ñii yoo fi nekk. bu ñu gisul loo xam ni tamit jëm na kàddu bu beneen yoon a tey ñu def leen ni ñu defoon nii rek dëkk bi dafa war a avancer législature ñu ñu ñu ñu au fait ñu liñ koy doyee ñoom ñu nekk ci muy voter des lois à l'assemblée lépp loo xam ne gouvernement bi indi na ko ñu contrôler action gouvernement bi. budget yi ñu diviser ko teg ko ci yoon santé bi li ci war a dem ñu def ko ci mbay mi li ci war a dem ñu def ko ci faneen fu ci nekk vraiment ñu indi fa ay ñoo xam ne mature nañ mu nekk ay bañ a nekk ay député yu partisan loo xam ne xàmmeewuñu njariñu dëkk bi ak njariñu parti bi bu ñu nee diw la président moo ko fi indi xam ku mën a doon président moo ko fi indi rek il ne recherche pas réfléchir ñu taxaw nekk ay techniciens yoo xam ne seen bopp yu baax na lu ñu leen indi jàkku xalaat kenn parce que ñëpp mënuñoo nekk foofu mais bu ñu ci ay sénégalais jàpp nañ ni ñi ëpp xel ëpp xalaat gën a mën a def seetlu ci dëkk bi ñoom ñoo fa nekk li nga xam ne baax na ci dëkk bi ñu voté ko li nga xam ne baaxul ci dëkk bi ñu teg ko ci suuf noonu lañ bëgg mu dëkk te yàlla na am cohabitation nag état dox li mu war a dox lépp indi ko assemblée ak ay technocrates yu taxaw ku ci mel ni Thiès gi Birame Souleye Diop un cadre boo xam ne mu ngi nekk des finances bis bu fu ministère des finances ñëwee dina ko wax lu dugg ci bopp bi loo xam ne du dañ loolu lañ soxla agriculture aussi ñu indi expérimenté secteur bu ci nekk ñoo nga xam ne matière grise ba dëgg dëgg dëgg ñu indi leen teg leen assemblée parce que dañ kat mooy contrôler action gouvernement ñee nañu gouverner mais nañ ci xalaat ak euh, xalaatu dëkk bi vraiment actuellement am nañu xalaat bu déggal euh, expérience bu expérience bu rëy rëy ci ñoom parce que kat ay cadre rek ñoom ñoo fa nekk bu njëkk c'est des politicien politiciennes yoo xam ni mu ngi noonu mais actuellement ni moom vraiment on espère beaucoup plus di ñaan cohabitation am nag cohabitation moom boobaa Sénégal rek moom moo fay moo fay moo moo fay dox quoi amul nii amul parti bi amul parti bële quoi que le meilleur gagne ñaan yàlla mu jik Sénégal jik réew mi yëpp aussi au au nom de tout le monde waaw ah, ñun dañoo ñëwoon fii tey doon defarlu suñu oto waaw ah, mécaniciens yi nag ñëpp dëkk bi pour mu changer ñëpp jàpp ci ah que mécanicien doo indi sa oto ñetti fan fii nii toog di ko xaar waaw ah, atelier bi dugg dëggal chef mécanicien bi dugg na fi génn fi loolu yëpp day doxal dëkk bi parce que da war a docteur bi a suba teel yéegaat ci mën a liggéey commerçant bi jël otoom suba mu xëy suba teel dem Dakar digaat mais boo bàyyee sa oto ñetti fan ñeenti fan toog ñu naan mécanicien bi dem na ngénte dem na dëj dugg na fii génn fii du doxal réew mi ñun ñëpp ci war a jàpp ko ku ci nekk nag fa nga nekk boo yaakaare ni da nga war a jàpp ni loolooy doxal réew mi mais Macky Sall tànk mu ngi fële dara du dox ñëpp a jàpp commerçant yi di jël prix yi di ko teg ci yoon ñu contrôler contrôler chauffeur yi dawal di teg yoon dëkk bi mën a avancer mais képp ku xalaat ni yow kese yow yaay doxal dëkk bi dëkk du dem fenn boobaa ñun ñëpp ciy perte vulgarisateur bi nga yaakaar ne amul solo boo xëyee suba teel bëgg dem ministre dëggal bëgg dem conseil des ministres sa pneu bu crevé bu la vulgarisateur defarul sa pneu dafa war a xëy 9h toog nga dem foofu mu defaral la pneu nga mën a dawal dem ba ministère pour kon fekkee conseil des ministres. bu dul loolu vulgarisateur boobu ngay xeeb bu xëyul liggéey yow sa oto moom du dem xanaa kay beneen taxi lay romb yóbbu la moo tax dëkk bi tout le monde est important moo tax daal vraiment ñun ñëpp ñu jàpp ci caméraman yeeg. tout le monde pour Sénégal émerger émergence bi nga xam ne ñu ngi koy séntu dafa metti trop ngay seetaan ci télé yi dëkk yi avancé toll foo xam ne vraiment da naan ñun ban façon nit lañ quoi alors que problème bi la maal féetewul ci njiit yi de féetewul ci dirigeant yi mais ñun ñi nga xam ne ñun ñooy fal njiit bu ñu baaxul dara du baax loolu la moo tax na ci ñëpp jàpp vraiment dëkk bi avancé Sénégal émerger incha allah. salaamaaleykum bon maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp waa Thiès di leen ziar di leen tatagal bon li Jolof Njaay dafa naan fekkee moom moo ma ci boole dama ne woon du ma ci wax sax waaye da fekk dafa fees sama xol eh, li may njëkk a wax mooy que eh, ñun xam nañ ñun sénégalais xam nañ tey du far mais askanu Sénégal moom moo moom moo bëgg changement te bëgg changement bi nga xamante ne moom lañ bëgg tey bëgguñu ko pour suñu intérêt peut-être bopp mais dañ ko bëgg pour intérêt askan bi yëpp tey li may njëkk a njëkk a jooytu mooy la cas de Mimi mooy kan ba génn ba ne Bokk Yaakaar moom moo gagné moom moo ëpp pourcentage maame sur le Coran ñeme naa koo waat man mii di wax ak yéen du leen wax peut-être que ne Benno Bokk Yaakaar la voté wala keneen la voté wala voté naa wala voté wu mais une chose est sûre et certaine mooy askanu Sénégal yeewi askan bi ak wallu la ñu jox pourcentage bu ëpp biir assemblée nationale joxuñu leen ko parce que ñoom dañ dañ leen a bëgg wala genre mais dañoo bëgg changement teyit it may may may may ñëwaat ci benn mbir euh, di di di lancer un appel monsieur le président dañ lay koy ñaan ñun ay Thiessois suñu mairie yëpp. waa yeewi askan bi ñoom ñoo ko moom ñun soxlawuñu noonoo yéen ak ñoom ñun dañ leen ko ñoom dañ fee teg pour que ñoom ñu jàppale ñu fi liggéey bi am na ñoo fi tegoon ñu ànd ak yow liggéeyuñu ñun ñu gis koo xamante ne doy nañu ñu jël ko teg ko ci mairie bi ñun ñoo ko fi teg ñu ñoo la fi teg yéen ñaan ñëpp ñoo leen fi boole teg ànd leen ngeen liggéey ngir yàlla ak yonte bi ngeen dimbali ñu te it ñi ngay àndal nga toog yow yaa leen fi teg nga toog nga waxtaan ak ñoom nee leen ñun duñu ay xale ay ay ay magum jëm lañ duñu xëy suba ba suñu njaboot nekk ci garage mécanicien di dépanner dañoo sonn dañoo tay dañoo maar ci seen jeu bi ngeen di seen jeu bi ngeen di a dafa doy. te it dinaa leen ko wax euh, Sénégal na foo xamante ne dund ak dee lañ boole yemale. moom bu ñëwee da koy dékku rek Sénégal métti na métti gom te di nga gis man damay yeewu sax daana yàlla na ma a rey. leen moo tax ma di ko wax parce que métit moo tax tey bu ma gisee ñuy def nag naka sul noonu daf ma jëm fa jaay tey bu ñu fi taxawee ne Benno Bokk Yaakaar moo ëpp majorité biir assemblée nationale leer na ma leer yàlla ne askanu Sénégal bu ñu wàccee Macky Sall dañ ko génne moom biir palais de la République te du ko fekkee ngir yàlla ak bi na leen dem ci jàmm ak salaam nga ñàkk assemblée nationale taxul nga ñàkk présidentielle bii di ñëw nga ngemb sa benn mbër ne ko demal. nga liggéeyaat fii ak euh, élection présidentielle di ñëw boo fi liggéeyee lom askan bi dal na seen xel doy nañu wallahi azim monsieur le président Macky Sall dañ la fiy tegaat bu ñu doyul dañ la fiy teg keneen ba keroog yàlla dañu boole ki nga xamante moom Sénégal moo ko ñor am nañ yaakaar ci ñi fi nekk ay ndaw lañ ay booy ndaw ñoo ko yor ëpp ñu ñu doole ëpp ñu leen doole tey bu ñu tooñee dañuy dugg ba seen biir kër yi fëgg fa génn leen amuñu gardien amuñu ñu leen di escorter donc ñun loolu lañ soxla bu la falee boo fi wusee gardien wala nga wut fi ay mbër yoo xam te ne ñooy taxaw sa buntu kër kenn amatul ci yow accès dañuy xam ne yow juboo pour liggéey mais tey koo ci dem ci këram boo fëggee da lay tëjjil ñaanuñu leen waxuñu leen dara mais liñ leen di wax mooy nañu liggéeyal Sénégal parce que Sénégal ñun ñëpp ñoo ko moom fi lañ juddoo fi lañ yaroo am nañ possibilité dem Europe demuñu dañoo toog Sénégal pour liggéey ngir yàlla ak yonte bi ala kulli alin gis nañ fi ku ne xalaate leen ci Senghor ci Abdou Diouf ci président Abdoulaye Wade ba ci Macky keneen mooy ñëw keneen ak keneen mën a doon sama doom mën a doon doomu kii mën a doon yéen seen doom mais lépp rek nañ ko teg ci ci aar bu rafet gouverner moom c'est l'art de bien faire donc def leen ko ci ni mu gën a rafetee askanu Sénégal yeewu nañ mën a toolee leen nax ci weccit te it bu ngeen fi tegee service d'ordre pare nañ pour affronter leen parce que suñu live moom dañ koy teg ci ci loo xamante ne da koy jar mënuñu di daj coono suba guddi bëccëg du ay menace mais problème bi mooy bu ngeen ko jaaralewul ci yoon wallaahi azim ñun suñ jëm bopp ñoo koy teg ci yoon te gisal ngeen seen bopp yéen bu leen nit ñi dañ leen wax ne leen Benno Bokk Yaakaar ñu ngi leen di bëgg ba tey dañ leen di nax dañ leen di amul parce que dañoo sonn ci yéen wallaahi azim dañoo sonn ci yéen dimbali leen ñu ngir yàlla ak yonent bi ngeen def ko ci jàmm ak salaam ki ëppale nañ ko ne yow yaa ëppale ki moyle ñu ne ko yow yaa ki war a toog ñu ne ko yaay toog ki warta toog ñu ne ko yow demal assemblée nationale comme marché central xuloo xeex ndaw ñi fi nekk damay joxe exemple Sonko mii xam naa ne àdduna du dox mukk ba muy xeex biir assemblée national pdf xalaatu ko ci àdduna li ñu war a wax la ñuy wax dem seen yoon mais biir assemblée nationale rek ngay dégg man député Macky Sall laa loolu askan bi dañ koo naqarlu ay député Macky Sall amu fi député Sonko amu fi député Massamba amu fi député sénégalais moo fi am askanu Sénégal moo fi am kon dañuy wax ne gars nañ leen ci jàpp ngir yàlla ak yonent bi li sénégalais yi bëgg ba def ko président àndal ak ñoom ci loolu bu dee bëgg nga jàmm wasalaam loolu daal laa ciy wax. du euh, ma xëy na mag laa yàgg naa ci dëkk bi waaye élection bu ne fekk ma fi. waaye bii moom dafa am yu bari bari lu ma ci jàngat loo xam ni euh, li ma ci jëkk jiital nag ma sant yàlla ngir lan niñ ko niñ ko niñ ko wootee ba ba affaire bi jeex te euh, yenn dégâts yi ak yenn histoire yi ñu ci doon yëpp amul daal foofu moom moom moom li ma jëkk xool moom kooku moom sant naa si suñu borom mais nag am na beneen affaire bu am mooy que démocratie bu ñu ko daal wax ba fekkoon ne senegal da ko ñàkkoon mi ko commencé di ko am ndànk-ndànk te lépp mi ngi jóge ci ndaw ñi ndax xale yi ñoo ci jàpp mag ñi d'accord dañuy di gunge mais xale yi ñoo ciy jàpp te xale yi leneen daan xeeb mais léegi ñoom ñëpp xam nañ seen devoir xam nañ seen warugar bon gis ñu li ci bitim réew buñ sañoon buñ buñ sañoon Sénégal avancé te nguur yi fi jaar yëpp dañu mel leen ko xawoon sàggane euh, xale yi ak jigéen ñi bon ah li ñu sant suñu borom nag mooy euh, leader yi li ñu bari bari bari bari doomu aadama yi ñoo war a xippi xool xam ni adduna bi réew ma dégg mu neex ay jàmbur neexalu ko ñu nekk ci biir dëkk ba ñoo ko neexal ñoom ñoo ñoo ñooy doxal seen réew te lépp lu mu ci mën a doon rek mu ngi jóge ci kaw booloo jàppoo ndax feeñ na ci élection bi passé bii itam encore feeñ na ci te dama raagaar kii moom kanam la jëm mooy mbooloo mooy doole góor jigéen mag ak ndaw kenn ku nekk xam sa moroom li mu bëgg te man li ma gën a li ma li ma gën a jaaxal ci affaire euh, suñu nguur yitam mooy lépp lu naq naqari la prévoir ñoo koy teg seen bopp parce que nit ki doo fekk am réew nit ko am xam-xam nga teg ko ci ginnaaw fekk ko xamul dara nga di ko jël di ko jiital ngir lan sama mbokk la wala sama jegeñaale la ngir bëgg lu neex te Sénégal réewu góor la réew la boo xam ne ay bañkat ñoo fi nekk muy sunu maam yi ba léegi mun ñoo fexe ba réew mi avancé te réew mi ñàkkul dara ma xam ne kon bu fekkente ni dañuy seet. ñi am xam-xam ñu jiital leen di liggéey waaye fu mu ne nii man su ma tey damay daal seet ñi ngi fi nekkoon te man liggéey ma jëlee leen fi dem jël sama ay ma neex teg fi bon a ah, man nag li may ñaan mooy xale yi ñu gën a góorgóorlu ci kaw lii ma gis ñu koy yëkkati di ko doxal mooy lan jàng seen métier xam seen i droit xam li ñu bëgg xam ni gaal yi ñuy jël di dem di bitim réew di wuti di am am am na nu muy demee bu ñu leen yaatalee fii mën nañ ko am fii ci biir Sénégal mooy lal nañu fexe ba ñëpp nañ jàngi métier ku amul métier tam nekk ci école bi di jàng itam na nga góorgóorlu ba bàyyi caaxaan ñëpp jàng bu ko defee bu am am jotee ñëpp dañu am ah kenn du ñeetaan kenn waaye nag li may ñaax suñu nguuree itam ñu gën a dimbali xale yi bàyyi leen xel bàyyi leen xel kooku moom du ma noppi di jóg réew du avancé mukk te du xale yi dañu dañu dañ leen dimbali jàppale leen ndax ñooy mujj yëf yi yéen nag seen seen seen seen seen taxawaay euh, rafet na parce que ngeen def nii du dara lu dul euh, nit ñi gën a mën a xam li sunu kanam ndax li ci ginnaaw moom waaw li ci ginnaaw passé na li ci sunu kanam la ñuy wax góorgóorlu daal yàlla defal nu sutura defal nu jàmm ak sutura ak xéewal te xale yi gën a góorgóorlu ci njàng mi ak métier bi ñu bàyyi leen xel bu baax a baax jàppale leen jàppale jigéen ñi ndax réew bu avancé ab jàmbur du ko avancé ñi nga nekk dëkk ci dëkk ba rek ñoom ñoo koy avancé la waaw ñun mag ñi nag li ñu war a def def nañ ko léegi dañuy gunge xale yi waaye daal élection bi ma gis nii moom xam naa ni am na lu muy lu ma am lu muy junj ndax tey jii gis naa ni am na côté boo xam ni liñ ci doon séentu ba amoon am na lu bari lu ñuy séentu suñu kanam loolee ala kulli haal day am waaye fi ñu toll nii fokk ñu ba ñëpp daañu wéetaat seen ruq toog xalaataat xam ni caaxaan baaxul caaxaan baaxul. ay nit bu ngeen bokkee ànd lépp lu ngeen di def da ngeen di war di déggoo da ngeen di war di yëgoo di toog di waxtaan te ñu xam ne adduna bi eh, mu mënoo muusaka muccet ba li fi nekk lépp nga jël ko yóbbu lépp lañ koy bàyyi waaye kenn ku ne bëgg nga ëllëg nga am way bu rafet way bu rafet mooy lan xale bu nekk doom ju nekk boo sañoon noppal say waajur dégg nga kon nag su boo sañoon noppal say waajur waajur yi itam sama classe bi yëpp bu ñu sañoon suñu doom yi tekki ñu dimbali leen jàppale leen waaye ñu li gis booba léegi waaye lii li naan mbéjum kanam borom a koy fayal boppam xale yi xam naa ne parce que lii ñu jóge nii bu ci bu bu bu dakkul Sénégal dina mos a nekk Sénégal goo xam ni macha allah liñ séntu yëpp yàlla dañ ko defal. waaw ba tax na ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan nag ah tasaaroo gi yàlla nañ ci yàlla musal mbooloo gi am na solo lool jàppalante gi góor yi jigéen mag ndaw ñu bokk avancé kenn ku ne yéene sa morom jàmm. jàng ci ni métier ak ku ne loo war a mën a dimbali sama ko réew mi avancé bu ko defee ñu mel ni ñëpp wasalaam. salaamaaleykum man maay Baye Gora ñu gën maa xam ne ci Gora Koundane su bàyyi bi nag li li ma wax moom li ma ci teg daanaka mën naa bañ a bëri ndax ndax ndax élection yi moom jaar na ci yoon. jaar na ci yoon wat nañ ko normal li ñu xaar kay li ñu xaar ci ci ci ci ñu wote kay mooy. li ñu leen séntu li ñu leen séntu ñoom ñu ñoom ñu defal ko askan wi waaw ndax askan wi bàyyi nañ soxla bàyyi seen liggéey jóg ngir ngir jox leen seen baat kon yaakaar yooyu ñu ci am ci ñoom yaakaar yooyu yàlla yàlla bu ñu yàlla bu ñu ko tas xale yi jàmbaar lañu lool jigéen ñi itam jàmbaar lañu li mooy ñu jàppale leen ne ñu ko bàyyi bi waxee am liggéey jigéen jigéen ñi am liggéey loolu laa bi ko bi ko defee dina baax waaw loolu laa loolu ma ci sànni leen di nuyu waa Sénégal yéen ñëpp di leen siyaar yéen ñëpp du di nuyoo nag di wax si élection yi waaye élection yi ni mu doxee ñun kontaan nañ si ndax ñun bëgguñu lu dul changement am ci réew mi ku baax nag lañ bëgg ànduñoo kenn mais ku baax rek ku baax ku mën a yor réew mi changé lépp ku ñu changé assemblée changé ñu président changé ñu lépp ay mécanicien lañ ay ouvrier lañu fonction publique boolewuñ ñu si ñaar dërëm waaw te ñun dinañ yendu fi ba ngoon duñ am dépense. léeg ñu toog weer duñ am liggéey te kenn jàppalewuñu si ñaar dërëm ñu si réew mi ñaar dërëm mais nag ñu nu boole ci réew mi nag ñoon la ñuy jàppale gouvernement bi su ñàkkee rek ouvrier yi la ak commerçant yi ñoo tax ñu ñàkk parce que ñun woote luñ leen waaw ndax dëkk bi dafa métti garage bi nag sama garage mais dara doxu fi waaw moo tax ñu bëgg changement quoi ci élection yi moom ni mu doxee kontaan nan ci yëg nañ ci sunu bopp liñ ciy séentu nag yàlla na am mooy ñu jox keneen réew mi ku gën ci ñun waaw wasalaam.